Bienvenue sur Salam Vision. wa yëpp dem kii bi see ngooñ bi ngeen dajale ko waaw. maa ngi lay ziar bu baax. yàlla ko yàlla noonu. maa ngi tuub tey jégalu. Fallukaay waaw. waaye damaa am xibaar bu ma jot léegi mu xaw a yéen di jaxasi sama xel. waaw. ma ne am na ci loo xam ne bu xewee ci sa kër faaw man ma laaj la yow sa bopp nga waxal ma sa bopp ndax loolu am na. waaw. damaa jot xibaar léegi bu mu wax ni si ne sa kër ga ca Touba sa oto ba nga fa bàyyi woon. waaw dañoo ñëw fekk bopp nag yuñ teg ci bunt ci ci ci kenn ju pëna bu ne. waaw. ki ma ko wax itam doon koo xam ne dafa bokk ci man di liggéey ci man waaye dëkk biir waaw ma bëggoon xam ndax loolee mu wax am na ci firnde dëgg la am du dëgg. waaw loolu loolu loolu am na. Hmm. ndax ñun ñu ngi xel koom. loolu ma jaaxal. démb ci guddi dafa am ay ñeenti bopp nag yu nu leen teg foofu ci wentu fonu bu nekk ci fonu bi ci buntu kër gi. Hmm. Euh, bind ci ay yu kenn xamul noonu. Hmm. Euh, ay Sénégal Angleterre xaw ma seen la nin ma ko envoyé. waaye nag ginnaaw maa ngi xel koom nag jotaguma ci loolu. waaye vidéo nañ ko envoyé ma ko. Euh, nag wax dëgg yàlla ñi jot a def loolu tamit la caméra surveillance bi am na ñenn ñu ngi ci waaye dafa mel ne dañoo mhm. ba kenn mun leen a xàmmee waaye nag li ma ci mën a wax rek te wax lépp li ma bëgg ñu xam ko mooy réew mi danga mhm. xam ne ñun ñoo bokk bokk réew mi Sénégal la ñun bu koy defar sunu réew moo ñu tax di defar mhm. su amee ñenn ñu nekk ci biir di yàq nan xam fa ñu jëm te mooy ci ñenn ñi euh, du ma ci sori nag ndax li ci des ñi sës ci man jël noonu yooyu ngir bokkoo jébbal avocat bi ñu xool nu ñu def ak ñen ñoo def loolu waaye même a gaaw wàllu côté bu mën di doon ci koo xam ne xam nga ni mhm. nag nan mooy ci yooyu ndax yooyu baaxul ñun bu ñu def suñu moo tax ñuy def Mm-hmm. te incha allah rabbi bu soobee yàlla ko dogalam ak lépp lu waaye mën di def di ko xalaat ak di def. Mm-hmm. la yàlla moom bu ko nangu Sénégal day gagné Angleterre. loolu kon football ñun jërul loolu. Mm-hmm. ndax nan xam ne ñun état joxuñu xaalis kenn joxuñu xaalis. ñaanuñu benn ministre wala benn président bi ñu woo ñuy jokkoo. kon nag ñooñu bu ñu defee loolu. ak fu mën di jógee ku leen mën di yabal. Euh, ña ngay jum ci euh, ci ña ngay jum te loolu tamit mbiru tooñ la. dëgg la te ab julli tamit nag du tooñ. waaye daal sama wax comme ni ko ñëpp seetaane gis ko. Mhm. ñaareel ba woonan ma wax ma ko bi nga xëyee sama waa kër gis nañ ko. Mhm. Euh, ci kàttanu suñu borom maa ngi xel ko ma amaguma jot googu. Mhm. Euh, santaane naa ñu dindi loola. teg ko ci bërëb ba ma ñëw incha allah. jërëjëf loo mu mel ni suñu wax dëggal duñ la téye ci bi wax dëgg yàlla ndax gannaaw yaa ngi ci ngi la dégg yaa ngi wax yaa mooy bëggoon naa vidéo yi ne filmé nañ ko foofu noonu nga ko bu ko defee ñu ne mën a boole waale ci montage ndax tey Sénégal ñi ngi naan xëy na peut-être tey ji journaliste bi lay woo di wax ak yow saa su ne dafay tëgg ay plan yu kenn xamul waaye ñoom seen gis-gis la waaye ñun dara ñor ñu lu li la ñor mooy Sénégal moo ñu ñor réew mi moo ñor te équipe nationale bi tey jii bu jëlee ndam bi ñun ñoo ko jël waaw kenn ku di wax saa su ne tey Sénégal bu tàkkoon tey ji kenn ku mhm. wala dara képp koy wax loolu ndax li ma wax léegi ñun. Mhm. reng nañ démb tey doog a ñëw. yor na du ministre wala lu ñu séntu ci nit. Mhm. doomu aadama jëloon lu ñu wax loo xam ne doonul dëkk. ndax imposé woon kenn wala ñu ne kenn kaay ñu ñaanal la. ndax ñu naan fan coupe de monde. dañu nekkoon ci réew bi am fii taali bi am ñu ni ñaanal. léegi ñan doon ñaanal tey am nañu. tey teewul ñooñu gëm ñooñu topp ñoo indi ñeneen. maa ngi maa ngi jot ñun suñ ñun suñ suñ Tuubaa defar na suñ lépp hmm. loolu ay intervenant nangam yor naa vidéo yi hmm. loolu leer nañu na li ngeen ci am loolu laa ci am noonu hmm. la ma ko am waaye ndax maa ngi xel koom ci daara yi suñu safa Mbàkke moom suñ saali leneen la ca des nag ci kàttu na suñ borom bu lu ñu war a liggéey damañ ko liggéey incha allah incha allah bu soobee suñ Tuubaa ndax man li wax ni li ma koy firndeel mooy man jot naa ay vidéo yoo xamante ne ay nasaraan yu xonk ci ko def nekk bitim réew di la ko ñaanalee di la sant di la gërëm kon defe naa ni du ay tegdil wala ay plan yi ndax ñun nag joxoñu lu fees suñuy bët wala loo xam ne moo tax ñu doy woo waaye ñun gannaaw yàlla dafa nekk ñu doon ñu ci wàllu média mu ñu déggee loo xam ne dina jëriñ réew mi wala mu jëriñ askan wi faaw ñu seetal ko loolu mooy li ñu yitteel waaw non ñun sëñ bi xam nga ñun moom. Hmm. loolu jërul lijjanti wala ngay lijjanti nit ñi. àdduna hmm. ku fi nekk ci kaw suuf da nga dégg bu nekk. waaye li ëpp solo ba ëpp solo mooy fexeel yow ba décorté jëmm naw la. Hmm. ba ku la gis naw la ku jaxasoog yow naw la ku jaxasoog yow sañaata ñëwaat. moo ëpp solo. man ba dina tukki nee kenn du gis ma tontu benn sëriñ wala ma wax dara cib sëriñ kaaleen dara ngeen a dem kaaleen. dara a wax dara cib sëriñ wala may wax dara ci Mm. ak lan moo leen tax a jóg. surtout su fekkee nag leen tax a jóg. Mm. nañu noppal seen bopp. te xam ne Sénégal moom dana gagné. damay wax wax ji suñu mbay jaxate woon na pexem yàlla moo gën pexem nit ñi. wallaahi ndeysa fa yàllay fexe yàq kat yëpp fa. wallaahi fa yàllay falub leeram. Mm. ku bañ randu fa. wallaahi la fa muy yokk nit tamit ku bañ randu fa. wallaahi la kon nag loolu. Mhm. maanaam ci ciituma ci yooyu wala xeet yu mel noonu. dëgg la waxaguma kenn wala lenn ndax ñun ëmpewuñ ci réew mi. Mhm. adduna bépp ñu xam. Mhm. Euh, amul sens ci ñu taxaw di wax lenn loo xam ne gëmuñu ko wala dara. tey bu ñu yàqoon sama alal sama alal la maa ko moomoon sama bopp maa koy defar. tey bu ma amee dara maa ko may sama bopp nangam. yëruwuñ ci kenn wala ñuy xalaat lenn ci dara état. dëgg la mosul soxlu kenn koo xam ne da ngay jël sa téléphone di boobu ba ministre wala leneen am naa beneen cër bu dul dëgg la parce que ëmpewuñ ci réew mi ñu di nekk. loolu yàlla seen borom bi dogal. waaye nag képp koo xam ne def nga loolu. wala hmm. football bi moo tax nga def loolu. Hmm. Euh, loolu moom leneen lay doon. ndax nee naa man maa gën a gaaw yoon moom. di gis yàlla. <laughs> wallaay man maa gën a gaaw may def yoon di li jëm ci nit ak ngay def loolu. dëgg la de xaw ma nag luñ ci jublu mais ni ngeen ko gisee noonu naa ko gisee ñeenti nag la. Hmm. bopp nag bu ne lëmas ci lu weex des lañ ci def junni ca. fi ko guma ko benn nag maa ngi xel ko. waaw jërëjëf loolu duñ la duñ la tey ci liñ bi xanaa rek laa yar la gannaaw suñ ne suba la Sénégal di football lan nga ñu mën a waxaat ci match Sénégal Angleterre suba bi. waaw loolu wax naa ci waxati ci ñu ngi ci internet bi. confirmation laa bëgg confirmation rek laa bëgg man. bu ci bu ma ci nekkaatee di wax day nuru neneen. confirmation laa bëgg lay yàlla mayoon pour nangul incha allah rabbi soobee yàlla ko dogala. Mhm. max suba jàmm incha allah Sénégal. da ci am ndam incha allah dañ day qualifié. jërëjëf yàlla mooy bu ko nangu. jërëjëf loolu. am na ñëpp xam na ne daanaa wax ay sport. Hmm. man na maa tuddal tur bi dugal bii. Hmm. mais jëru ko ndax réewum Sénégal fi mu toll day. dëgg la mais li ëpp solo te fu soxla mooy Sénégal danaa ndam incha bu soobee yàlla. Hmm. loolu la ni ñaan yàlla te am nañ ci yaakaar te am gëm-gëm bi incha allah rabi bu soobee yàlla. incha allah bu soobee sëñ Tuubaa. waaw baax na jërëjëf di la gërëm bu baax a baax macha allah rabi Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.